بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإني أعوذها بك وزرتها من الشيطان الرجيم rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaxturuun mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu baax te leen ziyaara yéen nga xam ne ne bii di Diwane TV di leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun di wax ni ñuy gan chaîne bi ngeen abonné tey partage vidéo yi di leen ñaanal jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira suturas ànd ak su àllaaxira teraanga yi àdduna ak ju àllaaxira barkeb alxuraanu karim te ñaan sunu borom bi nga xam ne dara tëwu ko te moo yor kartan te yor lépp yal nañu defar risqan xalaalan tayiban maa lahu min nafaajin barkeb alquraanu karim te jàmmal ñëpp di waxat di na ñëpp gën a góorgóorlu si jaamu yàlla ak sellal suñuy jëf ak ragal suñu borom te topp ko surtout ñun ndaw ñi nga xamante ne bii dañuy door a dugg àdduna dañ fexe bay taqoog ak sell bu nu ko defee lépp lu nu bëgg suñu borom mën nañu ko defal te lépp lu ko ñaan mën n koo nangul ndax loolu rek mooy li am solo àdduna moom lépp lu fay mën a am lu bari bari day jeex kon bun di fàtte suñu borom bi nga xamante ni mooy war suñu lépp tey ak ëllëg kon nañ ci doolee góorgóorlu bu baax incha allahu rabbi comme nen ko baaxoo def saa su nekk rek tey jii ñu indi leen leneen lu am njariñ lool mooy loo xamante ni bii lu am doole lool la ci wàllu muy dox koo xam ne da bëgg ci nit dara wala nga déposé ci palaas ci palaas barab di ko yaakaar te amoo yaakaar ne mën na la faa jël da daal di jël lii wa zalalnaha lahum fa minha rukubuhum wa minha yaakuloon mu nga ci yaasin bu ma jumul ma ngi ci aaya ci yenn téere yi bu ko defee baat bi moom ngay adat baat bi ngay jël lépp ngay adat lim bum la jox nga jël limub ka nga bëgg ci moom dara turam limub turam moo xam mu tudd moor géy wala mu tudd seex wala mu tudd móodu nga àddat ko wala mu tudd musaa nga àddat ko mook santam lu la bi jox bu dee si moom nga bëgg dara dangay àddat aaya bii wa zalalnaahaa lahum fa minhaa rakuubuhum wa minhaa ya'kuluun adat nag boo ko mënul boo demee ci sëriñ daara bu la gën a jege wala defe naa ku dañu réer tuuti wala donga daara bu la gën a jege boo ko waxee ñaari ngeen ko xam ndax am na ñoo xam ni bu ne adat duñu ko xam mooy maanaam naatu sa limu tur ba kalken ko ba xam ñaata la waaye araf yi nga njëkk a kalken ba xam lim bu mu la jox nga jël ci nga xamante ni moom nga soxla ci moom maanaam boo bëggoon ci nit ki dara turam nga jël ak santam kooka nga adal ko jël lim booba nga boole kook lim bii lim bi lim bii la aaya bi jox nga jël limu turam boobee nga dolli ko ci boo ko ci dollee di ko sikkar wa zallalnaahaa lahum fa minhaa rakuubuhum wa minhaa ya'kuluun suba ak ngoon lim bu la jox rek moom koy sikkar aaya bi boo arrêté aaya bi maanaam boo gisee tax mu sonn ci leeral gi ñaare day am ñoo xam ne lay war da waaye boo arrêté aaya bi ba xam lim jàpp ci nga soxla ci moom wala ki nga xam ne da ngaa déposé moom mbir te yaakaar mu jël la ci place wala nga soxla ci moom xaalis wala nga soxla ci moom lépp lu mu mën a doon turam ak santam nga jël moom itam adat ko jël loolee lim boobee boole ko lim bii lu mu la jox nga di ko adat nga di ko wér de aay bi boo ko boolee lu mu jàpp nga di ko wér de aay bi suba ngoon wa dalalnaaha lahum fa minhaa rukbuhum minhaa yaakuloon mu ngi ci yaasin incha allah rabbi lu gaaw lool la boo doon loo déposé la wala loo bëggoon ci nit wala loo ko waxoon mu di ko yàggal insha allah boo ko defee balaa yàgg léegi moo wala ci lu gaaw léegi moo wala insha allah moo lay wal boppam insha allah rabbi kon ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax da wax ne ba tey ñi nga xam dañoo soxla bàyyi rek ñaa leen ci jox loo xam ne moo gën a yomb képp koo xamante ne bii fexe nga ba gis ñuy ataaya kuy ataaya nga fexe bun ataaya ba ba ba pare nga xam ne kii mi nga raxas kaas yi ndox moomu doon raxasee kaas yi ak laya ngit yooyu nga xamante ne bii moo desoon ci ci ci ataay ji moom ngay jël ndox mi raxasee kaas yi ak yi ndoo xamante ne moom lan doon sotti mbuum meeg yooyu moom ngay jël segg ko def ko am xàmb am xàmb mooy lan def ko lu mel subu mag di sangu insha allahu rabbi ataaya moom ku ne xam na ni daanaka doo ko taal yow doo nga naan ko foo ko taalee bu doon amoo ay gan balaa nga am ay gan loolu moom lu wér la te ñu ko ràññee bari na taal ataaya bu mu ñor yow doo nga naan ko moom yombu la gis incha allah rabbi ku koy def ku nekk foo toog mbooloo wër la bun ataaya ba raxas kaasi raxasit ngay jël nga segg ko def ko am xàmb di ci sangu incha allah rabbi foo toog mbooloo wër la incha allah rabbi bayre bu yomb ngi noonu te gaaw lool kon ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa